mbokk yi ñu ngi leen di siyaare di leen nuyu nan xool nun ñëpp sëriñ ab Mbàkke moom sëriñ soxna bu Mbàkke moom xaadimu rasuul euh, mi nga xam ni maamam ju tedd ja moo ko moomoon muy mbubum sëriñ Touba sëriñ Abdou Samat yéene taalibe yëpp yiw yéene jullit yëpp yiw tax mbubb mi jox ko kenn wonewu ko da ko solal boppam génn ko ñu génn ko dugal ko mu fasaale ci taalibe yëpp waaye fasaale ci jullit yëpp waaye fasaale ci doomu aadama yëpp seen sooy bu ni seen sooy bu yaata la woon ba def téere tu xuratu ni ak yeneen yeneen sëriñ Abdou Samad fa tabarakallaahu yàlla na ko fi yàlla bàyyi ndax yéene na ñëpp aw yiw moo tax mbubb mi mbubb mi nag ku ko xool xam ne bokkut ak mbubb mi gaa yi fans ak dàll yeeg kaliye yep mi nii moom lu wér wor yalla yàlla nañu si yàlla fasaale suni bakar jéggal ko ak luñ tip ñaw kon dal ku lu vidéo bi yaatal ko te ñaan ci bu mi nak mom mu ko kon gis ngeen serigne Abdou Samad Mbàkke yalla na fi yàgg loolu te yàlla na fi yàgg loolu te mii denc nañ ko denc bu yàgg gis ngeen nak buñ ko dox kenn mu koy daax wala mu ci def dara nga xam ne bu génnee fu mu dem rek euh, du delsi wala daan ci wut ay barkeel gis nga ko bu màngoo tey sëriñ Touba yal na ko yàlla fayal barke sëriñ Touba